ak euh, ñeneen ak ñeneen pour ñu ñëw leeral si xaalis bi nga xam ni itam toll na si 1600 milliards jël ko pare te Sénégal yi yëguñu ko euh, jël koppar gu toll noonu concrètement Adama. Euh, sëñ Fallou. 1600 hmm. milliards. 1 hmm. milliard kese man ak yow bu ñu ko amoon jekk nañ. 1 milliard ñu séddoo ko ku ne am 500 millions. si suñu àdduna bu ñu demee ba ne yoratuñ dañ ñoo war a rey. nit dund na ba dee amul 30 millions. waaw réew mu mel ni Sénégal nga xam ne day bokk ci vingt réew yi nga xam ne ñoo gën a ñàkk ndool gën fi sonal nit ñi ñu war a tabax ay hôpitaux. Hmm. war a tabax ay stade ah, ay lieux de loisirs yu dul jeex war a tabax ay jàkkaaki juma war a defal ay yoon mu am tey jii nii boo duggee ci àll saalum bi hmm? ñoo xam dañuy wasin ci kaw sareet boo duggee ci àll saalum bi nga gis fa ñoo xamante ne ay teen teen teen teen amuñ ko teen pour naan ndox teen bi ñuy wëggee wëgg mooy fii fas yi di naanee ak mbaam yi. ak jur gi ñoom ci loolu noonu la ñuy root pour pour pour naan si la ñuy root pour sangu ma dem ci dëkk boo xamante ne nii dañuy takk mbaam jël goj bi ak baag bi dugal ci biir teen bi takk mbaam mu daw a daw a daw a daw lu toll ni fii ak école joor pour ndox mi mën a génn waaw nga foog ne 1600 millions yooyu xëju doon ci ñooñu coono boobu ñooñu nekkee ku leen ko yóbbee ñu ngi fi lim ñu ngi fi lim ne ñoom ñoo lekk 1600 euh, milliards yi ñoom ñoo leen ko yóbbee. ñooñu ñoom ñoom ñoom ñoom bi ñuy ñëw Sénégal bi di fi gane àdduna si asamaan bi lañ jógee rek wàcc amuñu ay jur kese nit ñi am ko ñu dëkk ci réew mi nit ñi dëkk fi nan lañ mën a jëlee 1600 milliards te luñ ko mbooloo mi dañoo war a wax ak réew mi Ousmane wax na nee na lii lañ def ñoom kay bu fekkee defuñ ko nañ na defuñ ñoo la gën a xam ne ñoo ko def duñ tontu kenn du ci tontu kenn du teg taabal ji lu leer qui ne diir rien consent. nañ tontu. mais ak liñ fi euh, tabax lépp concrètement bëri na infrastructure yi. Hmm. Euh, est-ce que tamit koppar googu noonu euh, dugal ñu ko fenn fii. concrètement ma ne 1600 milliards loo ci mën a def bu fekkee dañoo defare ay infrastructure nañ ñuy wax tam li ñu ko defare ba li mu koppar lañ ko defare infrastructure bu ñu fi defar dañoo war a wax li mu koppar bañ ko defaree ndax lim ba jaadu na ci ñu def ko ci loolu ndax amul leneen lu ne ci loolu. gis nga gouvernance bu baax boko ko def mauvaise gouvernance boko bañé yi ni ngay fexé lijeenti ba pare lijeenti corruption bi lijeenti l'accaparement des biens publics et privés loolu mooy dëgg mënu ñoo doxal mënu ñoo doxal te duñ lijeenti li ba pare ku yor su réew mi nang ko andé ku ñu dënkon poste de responsabilité ci réew mi ñu woo la donc instant bi ci bon moment ngeen tollu parce que bo batay tey tëggagoo leen dara nag euh, si moment ngeen tollu moment léral ak est-ce que leeral parce que Macky ba ko commencé woon euh, premier mandat presque et quasiment premier mandat am amul dara loo xam ne itam réali na ko réalisation mi ngi do ci deuxième mandat parce que premier mandat bi dunoo focus woon ci créer bu mu ëpp est-ce que tam soo leen focusé ci li nga xam que modi euh, état des lieux et état d'autre et tant d'autres non non réalisation yi non non non loolu mënuñu teree liggéey lenn rek mo si jaadul moo ñu yobé bor bu toll ni bi ñu yóbbee réew

waaye ñi war a saytu loolu tamit dinañ ko saytu loolu kenn mënu ko bàyyi mu dem l'état des lieux dafa war a mën a am te bi mu amee tamit yow au temps te Macky Sall gisoon nga ñuy jiiñ bay jiiñ Ablaye Wade ay panc ay ay mu mm. tafoon mm. yu nekkoon si pale bi ñu jiiñ ko ko fii la ñu fekk loolu yàggul fàtte xaju fi doonte 12 ans la fàtte moo xajut kon ñoom tey jii nii bu ñu lekkee si àlalu réew mi ñu leen jiiñ ay 1600 1600 milliards ay Antoine Diome nga xam ne bi mu fi nekkee dafa mel ne benn ñebbi ci cin suñu nday ji waxon nako ko ki euh, kii euh, maire Woré Sarr ne ko sa kanam gi nga ne weref ni réew mi buy tak ya koy tal wa koku nonu mu fi nekkee won tay ji ni du leeral lim ñu ko dénkoon. mo la gëna a dina ko leeral. ak kenen ku dul moom est expliquer est-ce que man Sonko waxu ko nii rek pour wax mais est-ce que ñom concrètement Ousmane du façon buy wax di sanni dina ñëw expliquer. lay lay la soit dina expliquer devant les Sénégalais soit devant la justice peut-être. ñaari explication yi mom fala bu de mo am. ban ak ban. soit da nga tok def sa conférence de presse leeral sénégalais déglu la xool sénégalais dofuñu xam ne mm. wax ju yéen maanaa mm. wa ilaa justice woo la nga leeral kon leeral xam nga mën da ñàkk mm. falaa budd dina leer falaa budd leer dina am alors euh, par rapport ak euh, li nga xam ne que moo di ba tey miir yi le principal concerné mooy ki na xam ne que moo di Macky Sall Macky ngeen di ootal wala kon Macky ngeen am loo leen waajal euh, Macky ñi jàpp ni war nañ ko war a mën a topp pour haute trahison yow li tax li est ce que mën nañu qualifier d' autre trahi d' autre trahison exactement tout d' abord. waaw tas yaakaaru réew mi kay wut trahison la war a mën a tudd réew mi am yaakaar ci yow nga ànd ak say naw la ngeen di wut ñu jox la bañ lay jox gënoo fi kenn ëppoo fi kenn dara ay daan soxo ñoo fi nekkoon de ay tanoor jeng. Hmm. jiba layti et tant d' autres ñu jox Macky Sall du ma fàtte mukk mais ñooñu c' est des ténors de la politique sénégalaise ñooñu duñu ay caaxaan. ay borom xam-xam ñu tànn Macky Sall Macky Sall amul lenn lu muy def.

ab bato bu suuxee kay capitaine bi nga xam moo yilif bato bi kay dañ ko war a oo mu wax mu laaj ko mu wax mu d'abord ku ñuy laaj doog laa laaj tant que oowuñu Macky Sall nee nañ nag am na malaanum kiiraay guy war a a tax moom mu dem xaw ma loolu ni ko tëggee hmm. waaye nañ ko dindi war a dañ la waa son immunité ay immunité parlementaire seen waxi tubaab yooyu ngeen di wax ah. yooyu noonu nga xam jëmul fenn ay immunité parlementaire muy sabab ngay def waaye ancien président bu ko amee si immunité ancien président waaye yooyu nañ ko dindi yooyu lu war a dañ la di ko jox salaire président nit la ko di ko jox di oto waaye yow loolu pour di assurer si ay voyage moom moom ak nax nit ñi rek dañuy nax nit ñi yooyu amul solo mais quand même boo lubalee war a dem si noonu lubal rir ndax alalu réew mi ah nit ñi dee nga war a ñëw leeral loolu après ñu ne am nga immunité parlementaire ak immunité présidentielle ak yu kenn xamul boobu ba genn ba yooyu yooyu ëpp naa def. alors euh, Sonko dafa woo justement euh, li nga xam ne que moo di Moustapha Ba ak compagnie si leeral. waaw te Moustapha Ba mu jege woon ki nga xam ne que moo di Cheikh Diba exactement. Mm-hmm. alors est-ce que Cheikh boobu tamit moom tamit jotul mu daal di génn moom tamit mu leeral en tant que ministre finance bu Sonko est-ce que tamit waroon na absenté rendez-vous bu toll nu mel si li nga xam ne que moo di ndaje bi.

justice na leen woo ñu leeral ko. Mm. te liñ leen di toppee ñoo la gën a xam ne lu am la laa la wax lu am la ndax ñii dañoo tiim dossier yañ tooyoon ñoom lépp ñu xaatim ko ci ay këyit. Hmm? Mm. ñoom moom lañ tiim ba saytu ko ba xam lañ ci def rawatina yow yaa ko wax léegi l' actuel ministre de euh, finances ku jege woon Moustapha Bala kon kay xam na comme xam na di moom la moom xam na ko di waxul lu muy làmbatu di yow sa tele bi miin nga ko plateau bii miin nga ko bokk naa ci ñi ngi fi mujj invité. fu jiit yeeg jànqalaar yi nekk xam nga ko loo fi moytoog loo fi dul moytu xam nga ko noonu la demee amul leneen. sorti Ousmane Sonko bi est-ce que nekkul du ñu préparer que nii euh, ñii dem si wenn état de crise concrètement wala ko ñi ngi dem si benn situation bu difficile non nit ñi dañ laa dënk borom kër gi dënk la këram gi bu gudee bee tukki bu ñëwee war nga ko ne lii moo fi nekk. ak léegi <laughs> dafa ne mu ñuy préparer de. mu ngi mais day préparer sénégalais yi xam ne du yomb. léegi nag ñoom. bu demee ba nga xamante ne nii métit bi. mais Cheikh nee na di ngeen xaw a mënul soo leen mënul ngeen ngeen delloo. Cheikh moom moo njëkk a wax ne bu Cheikh moomu noonu ngay wax. Hmm. Cheikh moo njëkk wax ne ci réew mii bu ñu xëyee ba ñàkk réew mii dootuñ ko defati Cheikh laa dégg moo ko di kon ñoom xamoon na lan la def moom mi mën na def moom de sénégalais yi wóoluwuñ ko dënguñ ko dara ay bagage boppam la nekk di ko lijjanti sénégalais yi mosuñoo dënk seex Yérim dara bu bëggoon nekk député du ko doon mënu ko doon ndax sénégalais yi ñiñ bëgg la ñuy fal. ah Madiambal Diagne mii ngi mi ngi si liste. Ah, ah, nekk si liste daa tax nekk député. Ah, ah Adama Gaye tamit day nekk député. waaw ma ne nekk député nekk si liste taxut a nekk député. loolooy benn ñaareel ba boo amee ay wëllëre rek xarit ñu yéene la dugal la seen liste loolu luy problème bi ma Madiambal Diagne euh, Amadou Ba dugal na ko ci listam. Hmm. Madiambal kay égal Amadou ay xarit lañ ci loolu ban problème moo ci am waaye ndax réew mi dinañ leen tànn foofu la ma jënd di. gis nga yëkkamte ko dina yokk taxawaay waaye booy toqi mu dañ alors si loolu exactement euh, ñu euh, enchaîner directement si Rigila TV euh, du côté de la régie L alors euh, Rigila TV da ngeen am 54 pour cent